léegi nga ne euh, dara mënatu fee nëbbe ndax internet yaa ngi fi. waaw waaw. dara mënul nëbbu. stade. basket ak football ak handball ak lu ne. télé bu ñëw. kaset lay indaale. lii kaset la pourtant de. Hmm? lii bi àdduna di jeex. lii dëkk ni ñuy def nii. kan ma koy fàtte. Hmm? noonu la télé yi mel loolu nëpp nëpp léegi boo fenee daan naa la te yaa daan. yow doo fen ndax bu ñu génnee bu ñu génnee image yi na xool ne daan man fen naa di kon kenn mënatul fen fii dara leer rek. moom dafa ñëw mu ne euh, tawatul woowu la da dalu ko moom doom jalaw tawatul da dalu ko musulaawoo yi nga wax noonu yëpp na nga bëggoon neexal affaire yu demee noonu moo tax nga wax loolu. yow nag saytaane ngay indi. ah kañ. fu mu doon fajee bu lam kooku la àndalaat ku ñuul ki comme kan la mana ak doomu Joola bu ñuy dem ci yoon bi dañ doon waxtaan li ñuy waxtaan affaire giryaange dañ bàyyi caaxaan yi ñoom gis nga yéen nii sama projet ñuy bañ ma wax ko waaye nag mënuma nëbbu dëgg mënuma ko si laayif sëñ bi maa gën a bëri kersa koy bëri kersa man mën fii fii laay dugg wala fii wala toog fii am ku ma yoon nii kon daa bañ a génn daa bëri kersa waaye sama dëgg kooku noonu moom ma ne bu nekkoon ci àll ba ne la baal ma ak yaa ma mun fuuf. moom doomu jara mag nee nañoo bu mu waat tubaab ma deewee na ñëpp dugg àjjana man kese ma dugg safara ma suul si saa su ma ko yàlla baalee man baalu ma ko yàlla naa dugg safara bu dee waxuma loolu deuxième jour koor émission bi xam nga ko njëkk a def. doomu bi kaay mbay. moo ko njëkk a demee si émission bi. moom la caaxaan ne sëñ bi du ma ñooñu la matériel ma bëri seen fan fee lu am ndox waaye aar nu muy fay bëri ko ay nag ngay am ay nag yi nag ngay am waaye bu doon nu ma def fee su ko defoon Ndakaaru non tekki la wax la boo xamante ni duñ ko jël. waaw mais ni nga ko waxee rek noonu laay tontu bu ma juddoo laa tekki kër yëpp ña macha allah su ma nekkoon su ma doon yamar ma topp leen lu tax bay usines daw fii ma toog fii di fay location fii xale yi fii laa jël fii ba cinq personnes six personnes xale yi kon bii yóbbu na suñu kër Patte d'Oie ñëpp ay yow ñëw nga Patte mhm. d'Oie mhm. ah ak Fatima mhm. kon fen baaxul. léegi ñu jógee ci loolu nga ñëw yàgg yàgg doomu jalaaw waaw ñu nga ñëw yow Quench nga ñëw combat bi yomb gisuñu papis mhm. xamuñu papis papis mhm. feccul bëriwul mhm. ñu yendu ba ci kaw doo suuf moo la benn affaire wax dañ koy dëggal wàllu fi ne lu am Quench def maa mën ci combat bu trop ah, ah, ah déet nan laa mën a doomu aadama nangu ne mën naa ko daan ñu daan ma dama ko nangu te duma yàlla ku wees moo mun ci combat bu téeméeri junni yoon waaye nag ku ko nee na bu ma bu ma tudd turam ndax yóbbu yóbbu na ma brigade de Dakar ville du ma turam nag nee na naa bàyyi turam ni réseaux sociaux nan laa mën a amee combat ay policier di ma woo Mbour ba Dakar nee na diw nee na diw nee na daa bëgg diw daan ko ndax diw dafa bëri supporter mu tigaal ko combat fin saison jox na kii avance mm-hmm. na ma jox sama avance xam nga lu ñuy bañ promoteur yi du ñëpp nag moom lu mu bañ jokki xaalis am jox ma sama xaalis sa avance soo ma ko joxee normal ma du nag yow normal ci mbir gi waaye nag ma la laalee nga xam ne laal naa la waaye coince def maa laal ba ma xam ne coince laal na ma Modou Mbaye yéen a ngi stade yi ñëpp mm-hmm. après seetaan nañ vidéo yi daa ñëw ne ma Pape Is xale mu ndaw ngay bëri nanga ma ne ko Modou Mbaye bëriwuma xale mu ndaw promoteur bi laay bëreel waaye bu kulom lamb yi jeexee na la wax xew ci combat gi komba bu des une semaine nga soog a jël avance ak mbër te kee jeexal na te nga ne combat la combat kan jool kii saafara jox kii saafara loolooy combat waaye boo waxee ñu fàgg commencement eh, daan yëkkat dama ba ci kaw xaaj ma si suuf nangu naa ko waa général waaye ku ma daan na ko